waaw vacciné wu naa jël naa sama ñaari dose AstraZeneca. effets secondaires yi man de wax dëgg yàlla yëguma ko franchement bàyyi ma ko xel sax nag. li ma pousse pour ma dem vacciné wu ji lu si njëkk mooy acteur communautaire la dama war a joxe la bon exemple ba nga xam ne bu ma duggee si kër di sensibiliser pour nit ñi nañ dem ñàkku ji. day fekk ma ñàkku naa ba pare ñàkk bi dina la aar ci lim lay aar mooy maanaam du wax ne jàngoro bi sax mun na laa bañ a dal mais bu la dalee soxoraayu jàngoro bi ak tàngoor bu muy àndal du la laal conseil yi may jox rek mooy damay ñaax sama mbokk yi rek nañ dem ñàkku ji ndax ñàkk bi moo fi nekk comme ni ñu koy waxee chaque jour ñàkku ji daal moom mooy li gën moom mooy li war na ñëpp dem ñàkku ji xale mag ndaw ndax mu ngi fi jóge gu fi te mi ngi def moom yoonam mu ngi rey bàyyiwul xale bàyyiwul mag bàyyiwul ndaw du góor di jigéen kon nag ñëpp nañ dem ñàkku ji nañu def ni man